Miss Sénégal nga xam ne indi na coow lu rëy ci mi donc euh, Miss Sénégal qui ne fait définitivement pas l'unanimité sur les réseaux sociaux les internautes ont manifesté leur désaccord par rapport au casting des candidates et au choix qui a été porté sur la Miss Fatick elle s'appelle Ndeye Fatima John elle a été élue Miss Sénégal 2020 est-ce que kon duñ ko gën a xuus ci wolof xam nga pourtant dafay neex booy làkk wolof Ah. waa askan bi di gën a dégg. donc ce samedi samedi lañ ko élire fi nga xamante ni moo di grand théâtre elle a 21 ans donc actuellement mu ngi nekk classe de terminale elle succède a Alberta Diatta ku xam Alberta xam ni moom moo nekkoon Miss Sénégal 2019 donc euh, selon la présidente du comité d'organisation maanaam Aminata euh, Badiane nga xamante ni moom actuellement moom elle a fait beaucoup polémique ci réseaux sociaux yi parce que ni ngi dañu doon wax naan Miss bi elle mérite pas d'être Miss parce qu'il y ñoo xamante ni dañuy def ay clash yoo xamante ni dañ koy wane nekk nit yi euh, dañuy euh, dañ koy comparé ak yenn yi ñi naan euh, day ndiroog moustique ñi naan saaneex lay ndirool wala et <laughs> mais ñoom ñoo yéey en fait parce que pour rappel Miss Sénégal concours de beauté la boo xam ne organisé au Sénégal depuis 1960 donc moom la lauréate euh, day représenter Miss CEDEAO ak Miss Monde en même temps. Mhm. Dauphine yi ñooy représenter Miss euh, Univers. donc mhm. bi nga xamante ni euh, kii mbiroog femme moom la représenter ba gagné ko. <laughs> actuellement nii nii mais Sénégal man on a beaucoup de problèmes parce que depuis Ambroise Gomis bi mu jógee ci li nga xam ne moo di Miss Sénégal bi. boo xam ne def na fa vingt six jox ko ki nga xam ne moo di Aminata Badiane problème yi ça ne cesse de continuer parce que man li ma gis dafa dalul sama xel Aminata parce que boo demee bay jël Miss def ko Miss couronne bi ñu def ci B elle s'appelle Aminata ah. Badiane mhm. elle son nom de famille c'est Badiane alors que le B fait allusion à Badiane donc li monarchie la wala lan la bu weesoo loolu donc Miss yi elles sont au nombre de quatorze si je ne m'abuse ba pare ñoom ku ci gis ci ñoom français c'est euh, euh, je suis désolé faire sur les réseaux sociaux am na ñoo xamante ni nee nañ c'est plus Miss Sénégal mais Miss Mousse Sénégal mais ni ñoo euh, doy waar même pas capable de faire une phrase sans faute donc tout le monde l'a remarqué Miss si comme la plupart des jeunes filles euh, pas de connaissance pas de culture générale après ñu bëgg ñu takk leen et ça sera pas du tout euh, <laughs> comme ça et Miss Kaolack nee na Sadio Mané a évolué à Metz en France Stras Strasbourg en Australie et Liverpool en Angleterre bonne nuit mais, est-ce que loolu bi tey c'est pas juste le reflet parce que les Miss Miss les, candidates. Mhm. je, trouve que peut-être ce serait d'excellents modèles d'excellents mannequins. mais mhm. pas des Miss parce que Miss aussi elles doivent refléter la beauté du pays et le Sénégal est un très beau pays. avec énormément de belles femmes. et quand on dit la logique sois belle et toi Miss moo war a couches maanaam parler pour ñi nga xam ne dañ nekk ci ginnaaw mënuñu wax les femmes développement les femmes euh, yoo xamante ni comme benn Yacine elle fait carrière et elle fait très bien sa rubrique et cetera comme Bintou wala yow wala keneen yi nga xamante ni dañuy représenter la femme dignement mais quand tu vois une femme boo xamante ni on dirait même pas Oscar des vacances tout le monde est étonné on m'envoie des messages de ma il faut en parler il faut en parler certainement je vais que ça a nekk loo xamante ni intrigué na nit ñu bari man nee naa sax Subatel duñ dem bokk ji ci compétition bi. parce que lii oui, effectivement Miss Sénégal perd na valeur am vraiment. alors elle était très émuse. c'est ce qui m'a m'a hmm. vraiment choquée. ah peut-être elle a dit. je suis très émuse non non non non dégguma boobu. Miss Univers a fait mieux <laughs> son discours nous a mieux charmé alors ñu est-ce que du ñu jaar ci émuse bi dem ci rangu rek. Ah, ah, nañ jaar ci bi dem ci rangu parce que man. c'est à l'image du pays. Ah, mais yow a demandé à la Miss. département wu Dakar quatre départements elle cite Ziguinchor. <laughs> Ziguinchor je te dis quatre départements elle dit Dakar Rufisque Pikine Ziguinchor Pape Faye était ah faut pas être ah vous l'avez choisi. ah oui régions bu nekk nga tànn fa la plus belle c'est ça l'image du Sénégal ça. le souci c'est le casting casting bi pré casting ah. bi casting bi. Euh, ci sur quel critère même la ñu pour def. Euh, pour choisir en fait alors xam naa ak ñun rek xam naa na fi une semaine quinze jours moom. ba tey rek dinañ ci gën a wax incha allah. alors gën a yaatal ci 100 pour cent buzz mais tey dañu indi nga ne. nga ñamal ñu rek <laughs> nga actuellement rangu nga xamante renwul aussi ay bagages yi nga xam ne doo ko doon jaay mais tey mi ngi boo demee ci réseaux sociaux ni Instagram. parce que sa boobu. Ah. xam xam. ci yàlla xam dafa dafa guddee. daa guddee de waaw dafa guddee waa Anta Anta dina ma ko wax donc actuellement Rangou moo nekk koo xam ne mooy def actuellement le buzz sur les réseaux sociaux bàyyi woon na baalu woon na ba ñu baal ko Rangou barewu ci rangu ñëwaat na persisté na moom ak Mame Makhtar Gueye ñooy jàmmarloo on me dit que actuellement Mame Makhtar Gueye mi ngi def benn mini conférence de presse mini réponse boo xam ne mu ngi koy préparer actuellement nii sur les réseaux sociaux ouais vidéo boo xamante ni euh, euh, xam naa maam Sidi bu dee am nga élément bi aussi mën nañ ko jàllale en même temps di insister ne que maam Makhtar Gueye li mu wax nekkul loo xam ne moom yoo xam ne autorité étatique lañ génn nañ bi ndokk bokkoon nañ ci biir soirée bi ña ngi fa woon toog alors que Rangou nee na puce bi sax jotul tàkk ba ni ngi di woote alors que de source sûre man li ma jot a am mooy li nga xam ne moo di puce bi dañ ko jotoon utiliser am na ci ñu woote woon loo xamante ni commu communiqué woon nañ leen prix bi wax leen ni que nii ale ak nii ak nii lay demee ba am na ci ñenn ñoo xamante ni dañ ci bëggoon dem et tout man personnellement j'ai rappelé le numéro ba ma wootee boîte vocale laa jot euh, ça n'a pas fonctionné malheureusement ndeysaan euh, <laughs> Mame Makhtar daal wax dëgg yàlla moom <laughs> rang mi ngi koy rappelé ne ko daal nga jéggal ñu tuuti rek xam naa ne actuellement nii dina